713 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy génn te bu ñu nee góor ngóoraa tax. Macky Sall sa gendarmerie bi mu tëddeewul njaaxaanaay mu jàpp ma. FRAPP organiser conférence de presse nekkuma fa mu jàpp ma mu ne yow la rek yow la yaa ngi ni fàttaliku fausse alerte au terrorisme conférence de presse du FRAPP nekkuma fa woon liiruma. nekku ma ci taable bi nekkuma ci salle bi nekkuma ci bërëb bi nekkuma ci rue bi ma sax ci quartier bi ñu jàpp ma un mois de bés ba pare ñu may affecté six fois en huit ans mais c'était je n'ai plus aucune confiance en cet état-là en cet état qui donne à ses nervis un permis de bastonner Guy Marius Sagna de bastonner tous les membres du FRAPP je n'ai plus aucune confiance en cet état amatuma donc mais kóolute boobu moo tax ma jël dogal ne euh, damay suspendre damay suspendre sama nekkin ci fonction publique bu Sénégal ndaxte nag bëgguma nekk juntuwaay un joujou un jouet entre les mains du président Macky Sall saay bu ko neexee mu garde à vue ma saay bu ko neexee mu emprisonné ma saay bu ko neexee mu may ma liberté provisoire waaye saay bu ko soobee itam mu affecté ma donc affectation déportation bi c'est un instrument entre les mains du président Macky Sall pour me combattre de manière citoyenne pour ma combattre de manière politique dama jël dogal ne dootuma ko may jéego bu njëkk bi mooy damay suspendre sama participation ci fonction publique euh, bëgguma woon tardé euh, bëgguma woon tardé euh, ce matin moo tax j'ai pas eu le temps de passer euh, au ministère pour déposer ma demande de mise en disponibilité demande la de mais man saraxuma ñaanuma naa déposer sama demande bu conférence de presse bi jeexee balaa maa ñëw ci conférence de presse bi laa ko waroon déposé mais embouteillage ak yooyu ma ragal ne bu ma demee déposé le temps que may ñëw et ku xam waa FRAPP xam nu ñu mel ci wàllu tardé bëgguñu tardé euh, mais respecter les journalistes c'est arrivé à l'heure et commencer à l'heure naa déposé tey sama demande de mise en disponibilité pour une période de trois ans et débat wu ma si ak Sall c'est à prendre mais ce n'est pas à laisser wu ma saraxuwu ma daf may jox sama disponibilité bu ma ko joxulee lu ko neex na def mais dootuma nanguti comme dañoo nekk ci xeex Sénégal nekk ab nen moom Macky Sall ak ñi mu àndal bëgg a omelette nen bi lekk ko ñun ñu bañ mu omelette nen nen bi waaw ndaxte dañoo jàpp ne Sénégal mën na nekk cuuc mën na gën a rëy mën na mag mën na nen ay nen ngir njëriñu askan wi. comme ci xeex boobu la ñu nekk ak Macky Sall mu jaral ko nag lu nekk man dootuma nanguti ma nekk jumtuwaay entre ses tey mu yóbbu ma du ferlu suba mu yóbbu ma Parcelles Assainies gannaaw suba mu yóbbu ma Mbour du ma ko nangu tey du ma ko nangu ëllëg autrement dit ça n'a absolument rien à avec Kédougou tey jii nii bu ma indilee note notifié ma ne ma affecté naa la en face siège frappe du ma dem fenn damay déposer sama demande de mise en disponibilité et ce n'est pas négociable ci demande de disponibilité bi naa leen wax ne c'est à compter de tel jour et ce n'est pas négociable jour boobu bu jotee man jël naa sama disponibilité ñu jox ma këyit am dette parce que nag ça suffit dans pays-là waaw un peuple un but une fois la ñu wax mais waxuñu nga nekk président nga foog ne da ngaa donn réew mi di def lu la neex sama résistance naa ko yóbbu ba foofu dans les dans les dans les heures à naa leen wax à compter de kañ laa bind ci lettre bi mais du yàgg parce que nag saa yi bu ma bëggee jàpp ñu jël oto. jëlee ma Kounkané yóbbu ma Tamba yóbbu ma xaw ma fan yóbbu ma Kaffrine et cetera donc une simple lettre boo xam ne ñaari ministre ñoo koy xool ministre de la santé ak ministre de la fonction publique loolu soxlawul ay weer soxlawul ay semaine donc je refuse à partir d'aujourd'hui d'être un jouet <coughs> entre les mains du président néocolonial Macky Sall boo xam ne ndeysaan amul doole devant Alstom mu ngi yambar ba dee devant Eiffage amul fulla ak fayda devant l'Union européenne di jaay suñu géej ba pare naan moom moo war a jaay doole ak les sénégalais yi nga xam ne ils n'ont commis qu'un crime celui de dire que déet rongañu baa doole di siim cere buur dafa doy nga ñu askanu Sénégal di siim cerewu say directeur say ministre ak yow dafa doy askanu Sénégal di bëy yow Macky Sall ak say baaboon ngeen di dundee dafa doy c'est le seul crime qu'on a loolu nag am na loo xam ne man dootuma ko nangooti euh, je ne peux pas refuser d'aller à Kédougou mënuma bañ dem Kédougou parce que jotuma note d'affectation bu may yóbbu Kédougou mënuma nangu dem Kédougou parce que jotuma note d'affectation bu may yóbbu Kédougou mun na am euh, bu ma daanelee wax ji fii di ngeen ma laaj dangay dem doo dem mais munu ma nangu dem Kédougou parce que jotuma note d'affectation bu may yóbbu Kédougou munu ma nangu. munuma bañ dem Kédougou parce que jotuma note d'affectation bu may yóbbu Kédougou et ce n'est pas la première fois ndaxte wax naa leen ne euh, jël nañ note le 29 mars ma yëg ko début juillet waaw ma ne garaawul bàyyi ma dem garaawul bi nag moo jeex. léegi nag dafa am ñaari xeex lutte pour la gestion démocratique du personnel de la fonction publique lutte pour que Macky Sall bañati utiliser les affectations comme arme politique contre les opposants contre les résistants contre les activistes contre euh, nu mu tudd euh, les révolutionnaires anti-impérialistes et panafricains du FRAPP waaye tamit dafa am beneen xeex ñaari xeex moo ant lii mooy benn xeex bi waaw jéego bu njëkk bi ma ci teg mooy tey conférence de presse bi ñaareelu jéego bi mooy tey balaay 17h ma déposer sama demande ba pare wax leen ne je veux ma disponibilité ak compter de date sangam et ce n'est pas négociable date boobu bu jeexee état du Sénégal bu ma bu ma versetali benn payoor parce que peut-être la précision affaire faire c'est que boo jëlee disponibilité fonction publique amatoo salaire dama ne réewu Sénégal askanu Sénégal ak fi ñu toll nii ngir Sénégal ak Afrique moom boppam jaral na ma ma toog bañ a am payooru état du Sénégal foofu laa toll tey disponibilité boo ko jëlee amatoo payoor aw ma nag beneen liggéey waaw yàgg naa leen wax ne euh, mais payoor di tiit naan di ñàkk payoor yàgg naa wax ne Sénégal tant ñun askanu senegal pare wuñu pour ñàkk dara ngir Sénégal nekk leneen du ñu am dara ñun ñëpp nag di si seet naan xale yi doom yi mais xale yi da nga leen di yóbbu hôpital ñu dee foofu te du mujj fenn xale yi dañuy jàng ba ne ar ba yéey seen diplôme sangoo ko lekk ko naan ko ñuy chômer jël gaal gi ñu dee ca gaal gi. non seetal ci xale yi mais xale yaa ngi dee seetal si jigéen ñi seetal ci sa jabar mais jab mais jigéen yaa ngi wasin di dee ñu ngi ëmb di dee seetal ci mais liggéeykat yi sonn nañu tàyyi nañu béykat yi torox nañu donc je prends ma disponibilité évidemment je pendant cette disponibilité pendant ces trois ans dootuma amati payooru état du Sénégal amul problème dañoo war a xeex pour beneen Sénégal boo xam ne kenn dootul soxlati di def yenn sacrifice yi waaw foog mu am une génération génération bi nag ñun ñëpp la du Guy Marius du waa FRAPP foog mu am cim réew ci évolution réew ci doxalinu réew foog mu am à un moment donné mu am ñuy dund Sénégal dat sàngam jamono sàngam yu ne ah non non non tey la tey. le Sénégal ne peut plus marché comme ça deuxième combat bi mooy dëkk yu mel ni Kédougou Tamba Salémata Bakel Goudiri Ranérou Ferlo Médina Yoro fula Sédhiou ak ñoom seen mais elles sont victimes de discrimination mooy discrimination entre territoires ñi fa dëkk nekk ñu ay citoyens à part entière ils sont des citoyens entièrement à part de seconde zone bi may nekk Tamba maa jiite woon. M23 bu Tambacounda ci région bu Tambacounda pour wane rek ne man aw ma xàjj ak seen mais maa ngi fàttaliku jamono jooju mais jàpp nañ Malick Noël Seck ñu tëj ko indi ko kaso bu Tambacounda ñu organiser ñun waa M23 bu Tamba marche bu rëy rëy ngir wax lan Tambacounda n'est pas Guantanamo Tambacounda n'est et donc tey am naa sañ-sañ wax ne Kédougou n'est pas une déchetterie et les résistants les opposants les activistes les panafricains les anti-impérialistes ne sont pas des déchets Kédougou n'est pas une poubelle et ceux qui travaillent ceux qui se battent et luttent pour un autre Sénégal ne sont pas des ordures à jeter à Kédougou euh, dëkk yooyu comme ni ma ko waxee dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey bu dee Dakar ñu jox ko lépp mais xool leen terre bi alors qu'on aurait avoir mais raay boo xam ne day day jóge Dakar dem Ndar dem Matam dem Ziguinchor dem Kédougou